ci politique boobu avocat boobu judduwut. judduwut. ñoom ñëpp nag seen bàyyi xaw ma ko ci xeex bi. ñu ngi dégg Moustapha Diakhaté dama seetaan vidéo bi léegi ma gis ko mu wax mu ni moom xaw ma 1976 te dugg ci politique boobu Ousmane Sonko 9 ans la am xaw mu ni boobu Diomaye Faye sax judduwul mu nekk boobu nag moom moom mi ngi woon ci politique moom mi ngi xeex mi xamul woon seen bàyyi boobu anamu maanaam mi ngi tudd Pape Ousmane sonk ak Pape Bassirou Diomaye Faye xam nga. moom dafa dafay saaga patriote yi ci mag dafa leen di daggal saaga di leen tuddee lu ne mook Maître El amul lu mu yàqul Ousmane Sonko dem na ba ni ci xarnu fu ñaar fukki at yu mujj yi bu jigéen jurati lu mel ni Ousmane Sonko te buñ tegoon téeméeri jigéen ñoom ñëpp ñu ëmb ñu teg Moustapha Diakhaté teg Ousmane Sonko laaj jigéen ñi ñaar ñii kenn bëgg seen doom mel ñoom ñëpp ci Ousmane Sonko lañ jëm amu ci benn jigéen buy ñaan yàlla jur doom bi mel ni moom Moustapha Diakhaté loolu mooy dëgg yàlla xam na ni buñ tegoon fukki jigéenu Sénégal wala téeméer ñoom ñëpp ñu nekk jigéenu biir ñu laaj leen ñaar ñii Ousmane Sonko ngi ni Diop euh, kii ngi nii Moustapha Diakhaté ngi kenn ngeen bëgg seen doom nduróol jigéen ñëpp ci Ousmane Sonko lañ jëm Moustapha Diakhaté moom nag yaakaar na ni xeexal sa réew rek mooy nekk ci politique Moussa Diakhaté bi ngay lambar lambari nga ne yaa ngi def politique boobu bàyyi Ousmane Sonko mi ngi jariñ réew mi di liggéey pour Sénégal booba bàyyi Jomaay Faye mi ngi liggéey pour Sénégal du politique rek nga mën a defal Sénégal yéen au contraire yéen a yàq réew mi réew mi bu doxee ba léegi sénégalais yi ne ci armée bi la Sénégal enseignants yi pêcheurs yi ñi nga xam te ni ñoo nekk ci suuf di liggéey. di ñaq ñooñu ñoo yor réew mi mais bu doon yéen kese la yéen bu réew mi tardé bu réew mi yàqoo ce genre bii la politiciens yi mel ni yéen la yéen yàq réew mi yéen a tardé réew mi yéen yàq réew mi su woon enseignants yi bu du woon yi bu du woon bu du suñu soldaar yi nii bu du woon suñu artisans yi réew mi sànku moment bi ngay nekk di lambar lambari di wax bàyyi Ousmane Sonko mi ngi liggéey bàyyi Jomaay Fay liggéey ba retraité jël seen ñaq suñu bàyyi ñun ñi liggéey ba retraité am métier yow kenn xamuloo la métier politique lañ la xamal wax ça fait des années nga topp ci deru nit ki di wax mosulaa faale li euh, kii ni ko sax euh, Cheikh Bara Ndiaye waxoon rek laa lay waxaat da ngay dund di fekkee Ousmane Sonko di avancé di liggéey réew mi di yéeg Diomaye Faye nekk président ba doyal jox ko mu nekk président ñu avancé sa xol bi di dagg ngay wax di tàkk di fay te doo ci mën dara lépp ngay fekkee faatoogoo léegi yow lépp li nga doon ñaan yàlla yàlla du ci nangu dara dañoo bëgg ngay gën a ñoom lu bon yàlla di leen gën a yëkkati nga di fekk ngay fekkee lépp lépp ngay fekkee sa bi di dagg te doo ci mën dara na la yàlla may wér ngay fekkee lu baax li ñuy def ngay fekkee ñoom ñi ñuy yéegee ci kaw yow ngay dellu ginnaaw continuer noonu rek ñoom amuñ sa jot amuñ sa temps